xam nga man dama bëgg lekku mbedd naturellement et tout donc ma ram benn mère buy jaay ton ma xam ne mère bi lu saf la wara jaay normalement donc ma wacc jënd affaire yu non dugg sama auto di lekk rek ben xalé ñew fëgg sama bi oto ma wacc mu ci sa ba man dama la bëgg mais yow kon yow da ngay lekk ay mbur ak ton yoy mané ko waa mais lekk mbur ak ton kay man nit la artiste nit la artiste ñun dañuy def lepp lu lu raw li ngeen di def sa man damay romb des fois sama xel nekk ci crème ma dem jënd crème màcc des ma bëgg may ka dem madd moom waxaale moo ko bu ma rombee ay gerte damay jënd mbokk damay jënd man col douage laa nag hormis ça quoi te loolu ça m'a fait rire walla dama xalaataat li ma xale bi wax et tout ma ne non man aussi ma nekk xale genre su ma su ma daan xool star et tout dama naan waa ñii est-ce que dañuy sangu ñii est-ce feebar est-ce que dañuy def ni dañuy def ni c'est très normal bisous mais yooyu yëpp yow yaa koy lekk. Hmm? lekk kat nga ah. fii loo fi dugg yaa ko lekk léegi boo bëggee ma toog. yaay togg yow it de yaay togg ñooy lekk. waaw ah, soo ma fayee ma toog ba. laa dem ah, Walmart quoi. maa ngi mais yooyu yëpp yow yaa koy lekk. Hmm? lekk kat nga fii loo fi dugg yaa ko lekk léegi boo bëggee ma toog. yaay togg yow it de yaay togg ñooy lekk. waaw soo ma fayee ma toog ba. laa dem Walmart quoi. maa ngi mais yooyu yëpp yow yaa koy lekk. Hmm? lekk kat nga fii loo fi dugg yaa ko lekk léegi boo bëggee ma toog. yaay togg yow it de yaay togg ñooy lekk. waaw soo ma fayee ma toog ba. te laa dem wóol ma. Ah, wóol sama xarit bi yaa am jom de am jëkkër bàyyi ko Dakar tegoo ko bët bàyyi lépp gedd gedd gedd gedd gedd kase influenceurs yi gedd kase télévision yi kase rajo yi ñoom toog fi naan da ngay faatu faatu sama xarit bi yaa am jom fi yaa am jom sama xarit bi tegoo bët abaade kase RFM kase TFM kase influenceurs yi kase nga bàyyi ko ñëw fi di faatu faatu sama xarit mami Camara Seri Aba yaa am jom yaa riis mình chẳng